baara lañ ci lañ ciy àndal sëñ daam gannaaw bi ñu la ndokkeelee di kontaan ci bokkaat ak yow jotaay bi mbégteem koor mi de moom sa mbégte la. waaw jërëjëf euh, comme ni ma la tuddee l'homme de Sébikotane. merci euh, te yaakaar naa ne tur wala neex la. waaw ndaxte nit dafa war a ci fi mu dëkk. Mm-hmm. te yow bokk nga ci ñi nga xam dañoo fier ci fi ñu dëkk toujours di ko fësal. comme man ni may fësale nii je suis l'homme de Ngoumba Ngeewul. Mm-hmm. Euh, tey ñu am un président de la République boo xam ne si moom it il parce que ñun loolu lañu ñu xam ku ci nekk fi nga dëkk parce olof yi dañ ni li nga doon boo ko bañee dafa fekk nga gën caa ñaaw. Mhm. kon nag comme kenn ñaawul parce que Sénégal dëkk bu am cëslaay la. Mhm. kon nag ku ci nekk fi nga bokk nga koy fësal dafa am solo. Mhm. kon nag euh, damay am mbégte ñëw bokk génn waxtaan wi. nga xam ne mbégte koor comme ni nga ko waxee. daanaka at yii yëpp danaa ñëw ñaari yoon. dama daan ubbi di tëj. Ah. tey nag ubbiwu tëjum. <laughs> damaa ñëw ñaari yoon ci digg bi. Mhm. ndaxte nag li ko waral xam naa ni. Mhm. Euh, gis naa nag euh, jëloon ngeen ay disposition pour ma teel a ñëw su ma ko tijjiwul it bokk ci ñi ko tijji. Mhm. waaye ren dafa nekkoon année bu particulière ndaxte dañu nekk euh, ci campagne électorale ci biir koor gi loolu moo andi woon jafe-jafe yi te ñun bi ñuy demaare campagne bi dañoo nekkoon ñoo xam ni sunu candidat mi ngi ci kaso bi. sunu Euh, leader aussi bi nga xam si moom mooy jiite coalition bi mi ngi woon ci kaso bi kon loolu moo taxoon mu metti lool ci ñun euh, ñun ñu waroon na donc assurer li nga xam ni moom moo doon euh, campagne bi de bout en bout far yàlla dimbali ñu ñu génn kon nag tey suñ ñëwee fii war a waxtaane loolu lépp ak li fi xew yaakaar naa ni ñi nga xam ñoo nii seetaan tey dinañ kontaan tey dinañ gis ni duñu perte seen temps kon ñu ngi leen di wax ne nañ partager ñoom ñëpp Euh, lien bi bu ko defee ñu ñëw dégluñu ñu. def suñu jàngat euh, comme ni ko ñëpp xamee euh, bu ko defee chroniqueurs yi aussi def seen jàngat noonu moom la Mbecté Koor di doxe émission bu mag a mag la boo xam ne Sénégal yëpp dañ koy xaar parce que soo seetloo fu émission bi jeexee ñu commencé dagg dugal ci TikTok yeeg yooyu te loolu mandarga la ci émission bu nit ñi jox cër. parce que am na ñoo xam ñi ngi wax suba ngoon kenn seetaanu leen kenn lijjantiwu leen. kon nag ñu ngi sant internet di nga xam si ñoom ñoo nu jox importance boobu yéen ñiit ñu leen di gërëm. ndaxte boo fi deful émission bu am qualité tamit gars yi ñoom seen temps duñ ko yàq. kon nag bu ngeen amee qualité boobu ni ñu leen xaar. kon tamit euh, fii a jàngate nga xam ni ñoo mm-hmm. na ngeen am euh, mérite parce que da ngeen koo liggéey. dans la dure ba nit ñi jox leen cër bi ñu leen jox kon ñu ngi leen ci félicité leen sant ci loolu di xaar rek nag ñu dugg ci waxtaan wi. jërëjëf bu ko defee ñu mais am na loo wax sànq loo xam ne loo am solo la xam nga vaar. Mhm. gars yi nee nañ effectivement bu ñuy vaar bu amee litige mooy am mooy tax ñu vaar. Mhm. Ah, loolu dëgg la. Mhm. waaye bu fekkee ne dañuy vaar nit ndaxte dafa wax loo xam ne dëppoowul ak li nga xam ni. moo mujj am. Mhm. ñu vaar ko. Mhm. ki nga xam ne tamit bon dafa wax loo xam ne nit ñi tiitoon nañ ci ni li mu wax nii est-ce que am na mën naa amam déet far yàlla def mu am kooko ñu fàttali ko nit ñi ñu tuddee ko vaar ak nu ñu ko mën a tuddee dina am solo. Mhm. parce que ñun su ñuy wax toujours bu ñu koy wax dañuy assumer li ñuy wax man nag bu ma koy wax keroog fii dama leen ni man kenn du ma vaar. waaw donc jàpp naa ne ñu fàttali Sénégalais yi li ma waxoon. la veille des élections nga xam ne ñu bëri ñemewuñ ko woon a wax parce que élection bii nag dafa amoon ay enjeux. ba noppi ñu bëri amoon ci tiitukaay mais malgré titukaay yi ñun mosu ñoo raf ci lu nu gëm teg ko nag ci suñu xam-xam teg ko ci lu nu xam suñu réew xam suñu culture réew parce que politique da ngay boole lu bari pour mun cee wax muy leer bu fekkee ne xamoo réew mi xamoo culture réew mi amoo euh, yenn euh, xam-xam yu la permettre nga mën a jël assez d'éléments mun ko combiner mun a am ay position ba noppi nag nekk di ko xam doo par parloo parce que man samay analyse du ma far. maanaam li nga xam dafa ma yàqal même man su ma mën naa ko bañ a wax de mais su ma ko xëy xës a wax du ma ci par par parce que Amadou Ba sax xawoon nga koo yëkki keroog non mhm. leen Amadou Ba mooy sunu adversaire parce que Maître El Hadj Diouf dafa toog foofu noonu ne euh, bokkul ci cinq premiers waaw Diomaye bokkul sax ci cinq ba ngeen ma ko waxee lu ma wax mhm. bu ngeen fàttaliku dañ ma ko wax man leen kooku du ci wax parce amul sérieux moom mi ko xam na ne c'est pas sérieux quoi man mi ngi mel ni comme tey ma ne woon Amadou Baye jël ndaare ndax dama ko compte loolu nit ñi may seetaan duñ ma jox c'est pas raisonnable quoi non loolu xel mënu ko nangu xam nga nit kilifa day def fi kilifa man mun ma taxaw fii naan Amadou Ba tekkiwul dara loolu dama ko def xamul tax Amadou Ba waxuma la Amadou Ba mais ku mënoon doon Sénégal même ku kenn xamul mu nekk candidat au pouvoir bi nekk candidat wu Benno Yaakaar mais mënul nekk candidat boo xam day minable non ay mënut a nekk candidat un pour cent ou 2 pour cent ou moins de 20 pour cent. Euh, c'est vrai que man jàpp naa ni xaw na ma bett le fait que mu jege 30 pour cent quand même mais je le voyais avoir pour cent euh, mais pas le par dire qu'il est dernier il ne peut pas être dernier. mais je le voyais quand même avec 20 pour cent man 30 pour cent yi mu man il a fait de grands pas euh, quand même euh, et il faut le féliciter. Mm. Euh, pour avoir fait ces brillants résultats parce que quand même pour cent c'est c'est des résultats brillants pour amadouba mais nag wax dëgg yàlla man mosuma woon wax ne day jël ndaa rek parce que wax ne day jël ndaa rek c'est ñàkk xam la quoi et puis yeneen candidats yi comme je l'ai toujours dit ah man j'ai toujours dit depuis trois les élections yi ñu jëm wax naa ko ci législative yi yow invité nga ma. ci euh, législative wax la ko ci législative yi. moo ñu mhm. invité dama la ce sera une bipolarisation. nga joxoon ma fi benn exemple coalition XXL boo xam ni mu ngi nekkoon XXL ci tur yi parce que ay tur yu bëri la ñu woon y une constellation de stars. ñan la waa aar Sénégal euh, mooy waa aar yi ñoom tam mere woon nañ ma ñi ñi wooy ay technocrate waaw ñu ñu tuddee ay technocrate même ay politiciens parce que boobu c' était une constellation de stars y avait au moins neuf dix mhm. personnes ki euh, ki ñuy reconnu ba noppi moo reconnaissance nationale sax c' est un peu trop dire mais je veux dire l' élite intellectuelle xam nga voilà mais élection du élite intellectuelle encore une fois élection xeexu suuf la su fekkente ne da ngay dem ci route de Boune nekk un leader politique jaar ci mbedd route de Bouni kenn xamu la boo demee élection doo am dara élection dañ lay xam ku la xamul du la booteel loolu mooy élection élection question de d'envergure la mun nga ko am ci diir bu gàtt mën nga ko am ci diir bu gudd par exemple soo jëlee Abdoulaye Wade daf ko am ci diir bu gudd gudd gudd chaque année muy gën a ah, muy gën a dolli Sonko nag ci diir bu gàtt la ko am loolu yàlla moo koy maye. ku ci nekk ak lu mu la defal mais Sonko aussi il faut reconnaître que les Wade amul woon la am Wade bi muy ñëw amul woon réseaux sociaux. waat bi muy am bi muy ñëw amuloon woon pluralité médiatique boobu amul woon tey comme structure ni mu amee doole boobu média d'état moo fi nekkoon mhm. benn système pensée unique moo fi nekkoon imposer lu leen neex teg fi benn média boo am si mu ñoo wax ci keneen wadd leen doon am c'est parce que dafa nekkoon homme de terrain moo tax amoon ko léegi nag soxlaatoo loolu léegi avec vraiment les nouvelles technologie de l'information et de la communication loolu la moo tax Ousmane Sonko li wadd def vingt six ans au pouvoir pour mën a accéder à la magistrature suprême Ousmane Sonko soxlawul loolu moom day ñëw ci benn neuf ans mu créer les conditions pour prendre le pouvoir parce que contexte yi ñoo bokkul mais vraiment daal dama bëgg wax ni politique da nga koy xam ñun gars yi dañ ñoo xeeb parce que dañoo jàpp ni expérience mooy âge te ñun duñu du ñu ay xale parce que ñun ñëpp suñu génération bi ngay muy Sonko muy man muy Jomaay ñun ñëpp on est entre quarante et cinquante ans moo tax du ay xale mais nit ko am man dama dama jag ma ni ñi luy tuddee xale koo xam ne même Diomaye Faye mi ñuy wax Diomaye à 44 ans. non loolu dama ciy sax am problème sama koñ ak sama yenn grand yi ma mag parce que dañ naan ma booy nga ma ne leen noonu nekkuma booy yéenay paa. waay c'est-à-dire paa yi ñooy gis ku am 40 ans ñu ne booy la. waaw nu mu nekkee booy quelqu'un qui a 44 ans. alors que le l'un des pays les plus influents du monde qu'on appelle la France bi nga xam si mën naa jox exemple je pouvais donner d'autres pays. Mhm. fal nañ fi ku am 39 ans. Macron Macron Emmanuel Macron 39 ans lañ ko fale mu jiite réew moo xam si. Euh, ci réew yu ëpp influence la bokk pas ci réew yu gën a développé mais réew yu ëpp influence mais ñun Sénégal ñu mën a jël euh, sunu réew nga xam ni amuñu lu dul ay dix-huit millions d'habitants réew mu ndaw même bu ñu amoon cinquante millions d'habitants ñu mën a jël un jeune boo amee quarante-quatre ans la am ñu bëgg a wax ne xale la waa xale par rapport à quoi donc man pour man vraiment des fois damay toog ci ñun au xale la ñu war a dénk suñu réew que xale yi ñoo ci réew mi te xam nga score yi daañ dugg ci kanam gis nga bu xale yi voté woon normalement parce que ce que les gens oublient mooy que les primo-votants n'ont pas voté voté wuñ massivement je veux dire il y a des primo-votants qui ont voté mais euh, primo-votants yi voté wuñ massivement pourquoi parce ñu bëri ci ñoom ñu ngi inscrire ci commissariat yi mhm. te commissariat yi soo ca inscrire dañu lay bindal dañu inscrire hors commission mhm. dañ leen bindal ne pas inscrit sur le fichier électoral maanaam mënuñu voter mhm. mais alors loolu yoon moo tax dans notre programme nous on une chose révolutionnaire maintenant xam nga qu'est-ce qui va se passer ces périodes de révision exceptionnelle des listes ak tappale yooyu day jeex Sénégal léegi xam nga qu'est-ce qui va se passer insha allah képp ku juddu et on va faire des réformes au niveau euh, de notre administration globale ce que propose le président Diomaye on va mettre un fichier d'état civil fiable léegi ça veut dire que sénégalais bu juddu dañu am un fichier fiable ku nekk sénégalais ñu xam ko ku nekkul sénégalais ñu xam ko loolu c'est important nga xam ni population bi dootu soxla recensement comme dans les pays développés ku ci nekk da ngay mën a xam sa statut à travers vraiment la réforme du euh, du fichier global de l'état civil parce que loolu fi réew bu amul fi état civil bu fiable mënut a def des projections de développement fiable oui, oui. donc loolu moo tax ñun dañuy njëkk a démarrer ci suñuy réforme dañuy am ay données statistiques yu fiable comment l'avoir mooy dañuy def une réforme boo xam ne dina permettre que état civil bi fiable ba nga xam ne bu ñu la nee boo duggee ci système bi te duñ ko nëbbu kenn ah, yow da nga koy mun jot ñëpp ay a dugg ci système bi. xam nga am na un projet de dématérialisation boo. xam ne moom mais lool lool mais ñu ngi ko doon wax ñoom defuñu ko. mais Diomaye propose ça. dans le programme de Bassirou Diomaye Faye qu'on va mettre incha allah en œuvre euh, à partir de dañuy def une réforme de notre administration. Mm-hmm. et cette réforme là day permettre. comportement yi nga xam moom mooy réew mi yëpp bu ci nekk day am transparence day am fiabilité hmm. dañuy xam département bu nekk ñaata sénégalais fa yeewoo ñu am à chaque fois ñuy réajuster hmm. ba ku génn àdduna dañuy mun réajuster par rapport à mise à jour yi nga xam ni dañuy mun a xam a euh, en ayant un Euh, un, un un état civil un fichier d' état civil fiable. même déclaration bi ça peut se faire dès dañ koy def dañ koy def en ligne. nga xam ne lépp day nekk en ligne. beneen bi mooy ku am 18 ans tu es automatiquement inscrit sur le fichier électoral c'est-à-dire dootul nekkati nañu rang pour dem inscrire képp mm-hmm. kuy sénégalais boo xasee am dix-huit ans automatiquement mm-hmm. tu es balancé dans le fichier électoral mm-hmm. parce que dañuy am benn fichier bu fiable boo xam dañuy xam ñu am douze ans am ñu am quatorze ans ñu am seize ans ñu am dix-huit ans ce sera la même pour les fonctionnaires je les rassure parce que bu ñuy dem retraite dañuy am ay jafe-jafe bu ñu léegi dinañ créer une situation boo xam kuy dem retraite soo amee soixante ans soo amee soixante ans soo amee soixante ans ba war a dem retraite day am basculement au niveau du fichier de retraités ba nga xam ne dootul nekk ay jafe-jafe yi wuti ay këyit fii naaw fii génn fii donc vraiment euh, avec l'ère Bassirou Diomaye Faye le Sénégal va connaître une révolution une révolution positive parce que ci côté yëpp dañuy wone ni ñi fi nekkoon bëgguñu woon mu leer ça ne veut pas mënuñu ko ah mais dañu doon bañ mu leer parce que élection yii. lu mu gàtt gàtt fichier bi waroon na mat neuf millions d'électeurs mais on a au moins au minimum deux millions de Sénégalais en âge de voter et qui n'ont pas voté loolu c'est loolu nag ñun dañu jàpp ne suñu rôle mooy def transparence transparence mooy ku am droit voter nga voter ba nga xam ni même li ñuy wax ay kii parce que man ñun gëm nañ ni fichier bi bu fiableul am na sax ñu voter ñu warul voter parce que ñoom boo xoolee. ci ñi fës rek la ñuy euh, xool seen casier judiciaire et cetera mm-hmm. mais ñun dañu war a am un fichier de casier judiciaire boo xam si les condamnations yi nga xam ne daf lay déchoir de ton droit civique nga mënoo voter yooyu yëpp dañu dafa war am ay mise à jour au niveau du fichier électoral ba nga xam ne ku am 18 ans bokk ku ci def loo war a lu tax ñu war la génne que ñu génne la parce que dañ la war a génne donc fichier euh, électoral dafa war a dynamique mais nekk un fichier transparent comme ça se passe dans les pays développés donc Bassirou Diomaye Faye loolu pour donner un exemple rek. parce <laughs> dañuy gën a ñëw ci programme bi ci kanam. bu ñu duggee ci kanam dina leen wax li nga xam ne incha allah moom lañ nar a def. jërëjëf euh, daam ci introduction bu am solo boobu dañuy bàyyi Babacar Kébé euh, mu daal di ñëw ci li nga xamante ne ni moom mooy cinquième président juróomeelu euh, njiitum réew mi nga xamante ne ni sénégalais yi tabb nañ ko muy son excellence Bassirou Diomaye Faye gën ñoo xamal.